waaw ndaje mi tey dañu woo responsable A3J ci ay localités yu bokkul. A3J mooy lan. A3J ànd jàppoo jëf ci jàmm muy mouvement bu mag boobu nga xamante ni moo accompagné woon le président de la république ak Macky 2012 Euh, mooy a 3 pour léegi pour lan woote bi lan moo ko sabab. woote bi tey mooy démarrer euh, parrainage bi tey responsable yi nga xamante ni ñoom laa àndal di liggéey dañu ñëw jël seen ay fiche pour ku ci nekk dem liggéey sa liggéey ci liggéey bi ni mu gën a rafete ñun nag dañu gis ni fii ci Hann Bel-Air euh, douze mille cinq cent voix la ñu président de la république. sas loolu la ñu jëlee au niveau di département bi ñu ñëwee ñu réunion ñu ni vingt euh, responsable moo fi nekk alors li jaadu tey mooy ñu séddale woon ko ku nekk dem wuti parce que nit warul mën a euh, bañ a ragal a évaluer boppam mais ñu ni dañu koy def ay zonage dañuy ànd di liggéey te comme tiis yi dafa am collecte ñu ni bu ñu liggéeyee ba pare kan mooy signé ci turu kan la ñuy signé alors ñun daal eh, tey yàlla dafa def li ñuy yéene ci parrainage bi dafa yemul ci Hann bel mhm. ndax réseau national lañu comme réseau national lañu nag ñu ne ñun duñu bokk ci Sonace boobu dañuy dem wut bu dee 100 la ñu xam ni 100 la ñu peese fii ci Yara 200 la ñu peese ca Tiwaawan 300 la ñu peese ca Ndande comme Guinguinéo comme Tamba comme feneen ak feneen parce réseau bi du réseau au local réseau national la bokk leen ci Benno Bokk Yaakaar commune bi déedéet bokkuñu si Benno Bokk Yaakaar commune bi mhm. parce que commune bi douze mille cinq cent la vingt responsable moo fi ne bu fekkoon xaalis la ñu ni dañ koy séddoo dañu naan waaw mais bi ñu nee ay voile dañ koy séddoo dañ ne nañ bokk liggéey ñun d' accord wuñ ci loolu mhm. li ñu ah. d' accord mooy A3J moom dafa beru donte le président de la république ci ndabu président lay sotti mais nag comme fils yi dafa am collecte le collecteur c'est qui ñun daal ñoo ngi dem wuti sotti président waaye bokkuñu ci benn bokk yaakaar mais est-ce que loolu du risque ci yéen. déedéet du risque du parce que nit warul ragal évaluer boppam. Hmm. nit du ragale évaluer boppam kon yeneen 19 yi daal daanaka mel ni dañoo ragal daal évaluer seen i bopp. dama ni sa gis-gis. Euh, man duma nekkuñu ci moment wu sànnente xeer. Hmm. mais moment bi ñu nekk mooy. moment ku ci nekk war nga mën a dëggal sa bopp que ni commune bi lii laa fi tekki kon loolu dafa am solo parce que ñun dañu yàgg di liggéey de 2012 à nos jours nag li yàlla def te ñuy ñaan ci kàttanu suñu borom mu continuer di ko def mooy liste bu ñu bokk fii ci Hann bel mooy jàll. ok loolu la yàlla. léegi yéen si douze mille yi seen objectif yi ñaata ngeen ci bëgg a am yéen. ñun lu ñu am ñun daal lu ñu am rek baax na. Ah. li nga xamante ni dama dama ni man lu ñu am rek baax na li am solo tey. mooy euh, bi ñu wootee département Dakar laaj ay fiches jox nañ ñu 2000 fiches te yaakaar nañ ni ñun dinañ am loo ëpp 2000 fiches yaakaar nañ dinañ jëliwaat yeneen fiches parce que 2000 fiches yooyu déjà manqué na lool lool lool kon li am solo mooy A3J liggéey en synergie liggéey ndax président de la république li mu bëgg ci réew mi mu mën ko yeggale loolu mooy suñu